والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu soit ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fan fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax ñu mën a jot sa dépôt ren nag soppiku yi ñu indi ci jongante bi mooy képp ku bëgg a bokk say at warta romb ñeen fukki at ba waral ku ci jàll ci xaaj bu njëkk bi faaw nga indi kayit buy mandargal say at moo xam muy sa photocopie carte d'identité wala sa extrait de naissance fii si mim réew jàpp leen ni Proximville li mu leen indil si wàllub dëkkuwaay yu mucc ayib boole lépp a ngi si biir xanaa da ngeen ak siwul si résidence Lat Dior si Lac Rose ak résidence Belel City Diamniadio résidence Lat Dior digganteem ak Lac Rose cinq minutes dong la boole mbokk yi dafa ubbeeku si autoroute à péage sortie 10 ubbeeku également si tali yu bëri fii nag di ngeen fi fekk ay village standing ak appartement économique lépp ngir seen nekkin gën a yemb mu yi ngi fii lu si mel ni espace vert salle de sport mini marché syndic sécurité fii si Bambilor jàpp leen lii daal la leen Proxim ville defal la ci gën a neex mooy mbokk yi fanweeri kilomètre donc moo dox digganteem ak aéroport Blaise Diagne takkantuku café Touba bu amul fen kaay la secret seetil waa café Matlabul Afia café Touba rek ñoo ma ci doy café gu ñu tànn ba mu set ko ci anam yu mucc xamul desewula ño def ko ci emballage am yu rafet yi te am karange café Matlabul Afia bàyyi na xel bu baax ci seen poche tolluwaayu jamono Ahmad Souleymane bi sarfi al kay ma taqoo da simamin lirrasiyati mbokki Sénégal mbokki àdduna wërngal këpp jàppaleen xam ngeen ni jaaxle jeex na si wàllu fret wàllu transit diggante Dubaï ak Sénégal ndaxte Ocass Touba cargo service Dubaï ak Sina lii mu leen indil si ay xéewal ngir bu ngeen bëggee convoyer seen bagage en toute sécurité jëm si wàllu fret aérien maanaam ay avion ngir seeni i bagage seen bu mu mën a doon di fa jaar en toute sécurité dina ñëw à seen xel day dal waaw mu doon émirats wala turkish wala vol bu mu mën a doon jàppal ni mbokki mi sa bagage day agsi bu dee tamit wàllu fret mbokk yi lépp lu jëm si wàllu import export mu doon nga nekk Sénégal bëgg yóbbu ay bagage bitim réew rawatina Dubaay wala jóge Dubaay ñëw Sénégal aouzu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim awnaka ya mu'inu wa bika nasta'in wa nusalli wa nusallim ala ashrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman kathiran mubaraka laqin lisaani waxlulan minhu al uqad wa jaalu dhakiran wa shakiran abad mbokki jullit yi mbokk yi nga xam ne yéen ñuy topp ci seen site bi di Rafah TV euh, amati nañu mbégte gu réeree ci jotaay yu am solo yi nga xamante ni ñu ngi koy waajalee màggal gi ba weer wi teroo ba léegi ñu ngi leen di dégtal ay jotaay waaye jotaay yu tey yi nag da cee ràññeeku nag ndax jotaay la yooyu dañ ciy fàttalikuwaat taarixu mag ñi ñenn ci mag ñi nga xamante ni ñoo àndal sëriñ bi te itam ñu bay waar wu am solo ci yoon wi ba tax tey jii ñu war leen waat ci ay waxtaane waxtaane waat seenu dund dund yooyu nga xamante ni lépp am njàng la dund yooyu nga xamante ni lépp itam ay duruus la waaye ay fàttali la ay soññee la woon mag ñooñee mu bokk ci tey mag moo xamante ni mu ne su tudd màggal gi rawatina taarix ba te tuddaale wuñu ko muy sëriñ Ahmadou Diaw Paxa sultaanul aarifin mbokk yi bu ñu nee sultaanul aarifina di tekki ki nga xamante ni mooy buurub way xami yàlla loola du ay caaxaan kon mënuñoo ñàkk waxtaane xam-xamu leen nag ci xam-xamu sëriñ Ahmadou Diaw Pakha waaye li ñu ci gën a bégloo nag mooy ñëw fii ci ëttam bu tedd bi ëttu kenn ci njabootam koo xamante ni ku ñu ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko gwér di sëriñ Thierno Diaw Pakha ñu ngi koy ziare bu baax a baax sëñ Thierno ginnaaw bu ñu la siyaara di jéggalu ci jotaay bi xam naa ne xaw naa xat waaye nag sëñ Ahmadou Diaw moom mooy suñu lépp ba nga xamante ni euh, lu mu laaj rek incha allahu jaral na leen ko. ndax gis nañ taxawaay yu am solo yi nga xamante ni moom ngeen ci taxaw ba ci néegub yàlla bu am maanaa bi nga xam ne yaa ngi koy taxawee ñaan suñu borom may la fan wu gudd ba nga fekkee ubbi tega incha allahu taala di ñaan Cheikh mun taxaw mu yàgg fi loolu te ànd ko wér kon ñu bàyyi la ak mbokk yi nga nuyonte ak ñoom waaye nga wax ñu sëñ Ahmadou Diaw Pakha moo doon kan ci ganeeg jamono waaye ci aw askan itam. mbokki taalibe yi ñu ñëw fii teew tey ngir di am lu ngeen di laaj ci diggante sëñ Madiaw ak sëñ bi diggante sëñ Madiaw ak Magal gi ñu di baax di leen sant ci gannaaw nuyoo bi nu ñaanal sëñ bi nga xam mooy sëñ Mountakha di xalif général di murit yàlla ko fi yàlla ko fi lool nga ànd ak wér ba ko laaji sëñ bi waaw ah, sëñ ma jom mi xam na am nañ ci xam naa du xam lépp waaye xam na am nañ xam wallaay waaw jóge sëñ bi mhm. moom mille huit cent soixante six la ñëw bi awee juróom benn at itam mhm. la ko lëf na ko nguur si demal jàng jàng moo si que mu ñëw takk bagaasam mhm. taggul ndey taggul bàyyi ñu xeexee rek jiitu ñu di am na fu mu ko dajeen di fa jàng ab diir mais ba mu jàngee ba xam ba ko jàngal gisul ba gisul ko mën a jàngal ci boo boo boobu la kaw kaw moom dellu na ko demal seet si si Ahmadu Bamba nga li nga bëgg moom moo ko sëñ Mbàkke Kajoor wax moom jëmloo mu xam wax sëñ ba àgg itam ba sëñ bi yee ko moom dellu fa mu toog diir ab diir rek diir bu gàtt la toog du si waat ndax daa nekk paxa teel bi daal yi sol ci kësañ bi daal yi di móolu si borom din móolu din móolu benn móolu bi tanal ko mu ne daal naa ñëw Mbàkke Kajoor laa biir sama mbokk teel bi seen daal yi ñu bañ bañ di ko sol ci kësañ bi bi ñu ñëwee nee na mu yóbbu sëñ bi far. waaw bi ñu ñëw sëñ bàggal sëñ bi ne ko man jaw defal yàlla def xam na cel ci xam noppi. xam ne xam na daal yi xam ne kon <laughs> daal di moom daal sotti. est-ce que. waaw. Hmm. daal di defante ak sëñ bi defante moom daal di dellu këram. Hmm. bi ca fan yooyu daal di dem Mbàkke Boor. Hmm. ca fan yooyu mooy daal di waajee paxa. daal di wuti sëñ bi fekk Mbàkke. boobee mu wax ànd ak moom Mbacke nag ba ba ni suñu bàyyi ko ji suñu tàggu fi benn yoon. est-ce que. Hmm. voilà bi ñuy sañ bi ñuy góor ko tuwaat bi ñuy góor bi bi ñuy doon sañ ci Darou Salaam. Mhm. ba bi ñuy ñëw Darou Alimul Xabir. Mhm. ba bi ñuy ñëw fii ci bi ñu jógee ma ma Darou Darou Alimul Xabir bi ñëw ndax tuwaat gii. Mhm. lépp mi ngi ànd ak sëñ bi. waaw góor beeg lépp fekk fekk na ko fi. benn sëñ bi dem ci géej gi te mosuñu fi tàggu benn yoon. est-ce que wax na ko sax ci ay béykat yi. mbir yoo xam ne wax nañ njëkk njëkk jeesas adoon taxu nag moom taxu buxaay bi ñi lama liif taxu ak laam taxu lama liif noonu noonu taxu hmm. woon wax nañ tam ne mu nekk ndaw ndax hmm. boobu denc ko wa xam kuntum maxu kan wal yi arfan bi arfin sa bi ne bi njëkk njëkk géej gi hmm. moom loo xam ne jiir boo kuntum maxu kan wal yi arfan bi arfin sa biyan sa biyan in jëlte sëriñ waaw mm. bu yàlla dogalee mu ànd ak sa bi ànd ak sa ba sa bi dem ba sa bi dem Bari ba ñu bàyyi ko Mbacke Bari dem ci géej gi mm. waaw mu ànd ak euh, maam ànd ak maam Thierno daal mm. ak sa Issa Diagne nga xam ñoom bu ñu tàggoo bi bu dul bëccëg waaye maam Thierno daal lañ teg si seen kanam mu mu mu génn at mu ci moom gànnañ ko bu yàlla dogal sëñ bi ñëwee ci ñëwee ñëwee ci naa yàggu fi dara yàlla ko yóbbu gànnaar. di yóbbu gànnaar nag. sëñ bi muy dem sëñ Fadu du ànd la sëñ Modou Moustapha. bu mu nee ba àgg daal di wóolu sëñ Moussa Binta Lo. daal di aati sëñ ma jaw ci ci aatif ndax. sëñ ma jaw ne yàlla xëy di sembu waaye ci pax a toog ci tuuri ci ak xàq gaa yi sàmm ci sàq yi sàq yi ci kaw. Hmm. mu dégg sëñ bi sëñ bi ne ci gànnaar nañ ma woon man jaw. mu daal di bàyyi ñu ñu doon sëmb. dem dem rocc ku takku la fasam di wut si gànnaar. Hmm. nee na yéen dañu ko tax a yoon wi ci ci ci bëccëg bi la la àgg la àgg gànnaar. est-ce que. ba mu demee itam ba mu fekk tekki fasam ba ñu ñu sëñ bi sëñ bi daf ko laal di na ko gëdd ko man jaw ku leen woo. <laughs> mu ne ko ah seen kàddu la dégg. waaw waaw waaw koy joxoon ñu sori ñoo xam ne fañ ne sori loolu moom xay gël da ñooñu ñooñu tax mu xool ndax dañoo am ay laaj yu ñu daal di doon na ci liggéey bu xay mën ma ko boole tontu ken te yow ñooñu lay laaj xam nga ko te yaa dafa fuuf moo gën nga tontu mu ñooñu loolu lañ leen doyee waaw laa leen ko joxoñ mën ngeen seet waaw mu daal di daal di dox ba àgg ñu ab xay bu ay naar yoo xam ne yii yi nga xamante ne daal ñooy borom xam-xam yi te itam ñooy wàllu yi itam ñëw ñëw ñëw laaj la ñoom it xam jëmmi sëñ bi xam xam dafa nañ sax moom ndax xamuñu xamuñu dara kuñ hmm, laaj leen ne bu fekkee da ngeen am ak laaj ñu tàmbali ñu tàmbali ñu <laughs> leen tontu di leen tontu di leen tontu ko ah <laughs> ndax yaay sëriñ bi. waaw ndax mu ne ko laa ana xulaamu. ana xulaamu. ab taalibeem la. ñu ne ci loolu ñu ne ko arina seet. woon seet wala alantam suuf si yàlla moo yor. léegi ñu soxla lépp euh, mat na. est-ce que. wala suñu toog lépp dama bëgg rek nga won si ñu ko. bu ñu la baax loolu bu fekkee boo ci des mu sakk mu sakk ko. Mm-hmm. dañuy toog mu sakk ko rek. bu mu sakk ko rek dina dina dina mën a nekk. bu ñu leen di ñoom day amatuñ genn ak ñu laaj. voilà mm-hmm. si yitte daal mooy ja ja jàkkaarloo yow ak saafonte ak yow. waaw loolu daal mooy si yitte. ndeysaan. waaw suñu ne ko man jooju bi nga jógee fii ci man di dem si ñoom. Mm-hmm. sa jéego yi ngeen jéego ba ci doon mm-hmm. benn jéego képp boo ko woon ci ba tàggoo ci ñoom. soo agee boo waxee duñ ko xam. est-ce que waaw. waaw naa ko jox waxtu. mu jox ba waxtu boobee mu dem mu ñoom ba ñu moom ba sëñ bi ñu nuyoo taxawante sëñ bi. Mhm. dañuy euh, fab seen i ci ab bis boo koy jëmm si bopp bi. loolu a allah. waaw am am daal moom daal daal daal xam ne kii daal moom mooy ki ñu seet. ko joxee seen bopp itam. Mhm. sëñ bi berndeel leen ba yeewi leen. Mhm. ci bis jot. dañu ko jox ne bi ñu def ba àggal nag sëñ bi jox am néeg. ne ma néeg bee damaa bëgg nga dem dem toog ci xam ne tàmbali ab tàmbali la. waaye damaa bëgg nag képp ku ñëwati ñu yore ko waaw waaw. mu jëloon ko ne ah waaw Mbacke man de noo ko bëgg rek mën naa mën ko noonu waaye day bu ah, ñoom ñii day lépp luñ bind ci kii di Mbacke ñëpp. ñu ñu këyit maa hmm. ci raw ñëpp waaye ñoom ñu ni mën nañ ma laaj loo xam kenn du ko bind ci këyit te su ma béy li nga ci man doo ko soo soo bëggee li nga bëgg ci man nga am ko daal dafa naa da nga may woon ñaar yi wati alluwee banfos lu ne foofu ñu ko laajee moom mën nañu tontu hmm. waaye bu dee ci këyit rek ko wax nga dëgg daan ko joxoñ ab ah, benn ak kees boo xam ne dara néew hmm, donc su guddee bu guddi dawal jaxal fa tëdd fa fanaan foofu te boo duna foofu ci kees boobu jaxal dara ci moom ba mu set ba mu xëyee ba waaj bi mu ñëw siyaare sëñ bi wala ko na ko gis naa ñaari wér yëpp gis naa loolu mhm. ma mm. mu ko bindee xalima dara ba bi koy bi ñu jël jël bi dara fi waaye nag Mbacke dama bëgg waxtaan de dañu ñëw bisimilah. ah damaa ragal loolu day nga jox ma ko ci wax ci yi nga may liggéey liggéey bu jàng est-ce que. suñu la ko déedéet. ndeysaan man jaww su ma noonu asamaan damaa la def ngay jaww kenn ñëw ci asamaan jaww la jaar. Mm-hmm. waaw damaa la def kon euh, du kenn du ko jëf. Mm-hmm. waaw mu daal mu daal di génn ah, Ahmadu jaw jawwul. mu say xuus sama. wal ardu tahta al jawwi laa tahta sama. wallaahi ibnu ahmadu jawwul say xuwal farbu sama wala armu taxatal jaww yi la taxatal teewul daf may woowu yàlla dogalee mu fanaanaat ba ëllëg ba jëm te ëllëg sa ba mu xëyee nag la ñëwaat ci sëñ bi mm-hmm. ñu borom fi ne ko ana sultaanul aarifiin mu yax rafatul aarifiin sëñ bi sëñ bi muñ <laughs> loolu nag euh, sultaanul aarifiin nag boo ko boo ko déggee mm-hmm. da ngay xam ne duñ mën a jàng duñuy jàng mm-hmm. martaba la. martaba ju kawe sax. waaw te itam euh, loo loo loolu ñu ko woon. Hmm. firndeel na la mën naa nekk su tal arsi ndax arsi bi lay mun ko la ñu am hmm. man ko moom kenn dara ci dañ ko wax mi nga xam moo ko moom la rek moo ko xam te moom yow si dem ñi si dem al côté yëpp ñu ngi ko bàyyi ci moom hmm. kon mooy mooy mooy dëggal su tal arsi ca la bàyyi ca la tàmbalee mos mos bind ci xaal su tal arsi moom ñu xam ne xaal kenn mës ko xeet. njëkk hmm. loolu nag bi muy sëñ bi nag Malick Noha la tuddoon fi ci saa Malick Noha fi ci saa. Noha. Malick fi ci saa. Hmm. est-ce que. Hmm. bés daal gën a ji El ndax kon doon jàng. mu jàngale bu ko dawaa di da nga jàngal di moom naaw ah, dama ma fay ñu ko kum doon ñu kooku rëy ku nekk Moussa Guèye. mu ne ko wax mu ñëw man damay dem damay dama fi jaay ñu ko Moussa Guèye mu ñëw alay maa ne ko kii mooy moo jàngale naaw. ñu hmm. ko yow yaa yaa jàngale naaw. waaw mu xam ci dara ah xam nga kenn. wax dëgg yàlla. moo ko jàngale mu ne ko dama bëgg man man man man maa nekkul noonu ah dama dama fi ñëw rek damay dama bëgg mu la ci doon rek ma laaj ko rek ma leeral ndax dama. <laughs> est-ce que. góor gi dafa def ko fort ci nangu. Hmm. daal di seet loo xam ne jàpp na moom kenn kenn xamee ko ñu ko xamee. waaw hmm. ah, ko loolu. xëy ma jox tontu ko ay arab yoo xam ne yu arab juróom. arab yi juróom juróom. waaw. Hmm. maam Ibrahima arab yooyu mu doon làkk la ko ay woy. <coughs> góor gi xamul ci dara. nan kay di xam dara. xool xool xool li xamul ci dara xaatu arab mu ne ko wax yaa amul ci dara. mu leeral ko góor góor gi moo ci doon nag maa ngi ko noxaat wa wa wala xaw yéen. wala xaw yéen léegi si buuru ñi ñiy wax arab ñi ñiy wax euh, grammaire langue grammaire ak ñi nga xamante ni ñooy wax wàllum langue ci arab. maanaam xam nga lu jëw laq boo raayul xaa awil xaati. raayi luxaa awi luxaa alfatihu baluxaa ahmadu jow laxabu sultaanu wal aarifiina wal kitaabu taanu macha allah xam naa ne suñ Thierno macha allah waxtu mi ngi mi ngi avancé waaye doyaluñ ci ñu ñëw rek dugg nga sax léegi ci injazat ilmiya muy réalisation scientifique lii nga wax ni euh, feeñal nañ euh, maanaam diggam ak sëriñ bi tagg yi ak way yi kañ yi ak bàkk yi wane nag cofeelam ci ba mu jógee pax na njiit ñëw ci toog sëñ bi ci dóob dëm nag ke mhm. laaj la dafa woon atatu ko yàqul bal wara mutaayiba mhm. min al ahli wal awtaani gayraka naasiya wa faraxtu ahli kullu bika mumina wa alqaytu saa min ilayka nawasiya wala su ubaali bil baraaya jamiihi misaaqa wallahi in kunta raadiya wa yaqul bindi bil baraali jamiihi bi kaw yi min ahlillah billahi saahiya كوني إليه بتأدب واصلة وتليني قلبي بعدما كان خاشيا وتوصلني إنسيت في نصف ساعة لكونك في الدهر في الأرض عالية وإلا فمهما صحت يا خدم يا أخي فإني مقيم بالإقامة الرادية وأمر هيالي كله قد تركته بأيدي المربي بل مشيت الآلية وما أخني أن أرث الخدمودة سوى ولها من قد كنت في الهيئة ولكنه يخشى أن يخشى وينسى والنسي الجنبي وينسى وينسى للنسي الجنبي مكان ماديا تفديه مني روحه والجسم سمدا أراه مرادي وحده لمماسيا ولو له ولو له ما سدى الولاء بهدوء وكان ملحود إلى الله هاديا lu mu wax foofu noonu. warul laa ma sha Allah war a. ci ci ci ci waay waay xam naa tënk gi dana xaw a sax bëri waaye ñu tënk rek mag moom bi dëgg-dëgg lan la doon wax sëriñ bu mag bi. ci ci way yi nga xam ne moom nga doon jàng léegi. waaw loolu xam nga jeexagul. jeexagul waaw waaw. wasaakal la ci xat jaa wa diinu mayitul. Mm-hmm. waxa wasaakal la ci xat jaa wa diinu mayitul. Mm-hmm. fa yaayu saxsan fil amaakini maasiya. wasaakal la ci xat jaa wa diinu xaaj wa fajjara maa xaadu yoonal jawari. est-ce que. li mu jublu ci loolu mooy ñëw naa tey jii. Mm-hmm. bàyyi sama wax ak sama lépp ak sama dëkk ñëw ñëw ci yow foofu yow. waaw te sama yiti yëpp mooy bokk ñu ña am lay àgg ci yàlla sëkk. Hmm. waaw mën nga ko nag ci benn waxtu benn wàllu waxtu. Hmm. bu la soobee. bu la soobee mën nga ko ci genn wàllu waxtu. bu la soobee ji wax man maa toog te itam toog yi toog yi ma gënoon ñàkk toog. ci sama njabootu ñëpp. Hmm. bàyyi naa ko ci est-ce que fàtte naa leen sax fa. ba may naan nag sëñ bi ba ba ba ba ba ba ba ba tubarkalla waaw bi sëñ la ko la la bu ñu jugee gànnaar la ko dellu sa sa samp kër waaw moom ñu sa sa biir waaw ndaw la loolu def ci ndaw moo suñ gudu xëy mbàkki foofu ba ba ñëwee loolu ñu bay ko ñu bay mu mu mu mu ànd ànd ak sëñ bi Dakar sëñ bi garar ak sëñ bi sëñ Moussa Gueye Diouf ak sëñ Fallou mhm. ñaari at yoo xam ne sëñ bi daa teg sëñ Modou Dagana. sëñ Modou Dagana moom moo ci dëkk kaddu kaddu kaddu jigéen ci ñaam. Mhm. lam teg teg Dagana na ko euh, képp bu la kenn romb ku am mu jox dana ko jox ko mu lool wax féeg bu mu kenn ñëw. ñaari at yooyu ñoom ñoom ñoom rek ñoo ba ñaari at jeexee nag la sëñ bi joxe ndigal ku mu incha am na solo mbokk yi ba léegi. yéen ñëwee njëriñ itam. am na bis boo xam ne bii sëñ bi dafa wax Malick Ndiaye na ko na nga yéene wax ne moo ku ku ñu sëlmee tax dafa yëpp wuy si. Malick a di jëpp kilifa yi. te ki ñuy yaakaar ne ki ñuy xet rek lay ne bu takkusaan yi ñëpp wuy si. sëñ bi daw koy jéggi ñu ñu ko dégg. moom yi mu jëkk fu ñu am ko moom sëñ Maliou Touré ak sëñ ak sëñ Issa Diagne ñoo dox ñoo taxaloo ci njaareem jamono yooyu dañ woon jox na woote boobu sëñ Bambay woote de su ma wujjiwul ku wujji da nga ma sawar waaw boo wujjiwul woote boo wujjiwul ku wujji da nga ma sawar bañ dekkee ba takkusaan mu tàmbali di def ay bayit ngeen bu koy boole salaamun jasiimun ka kërkët dañi bi saydin hara min hubaydin dañi hmm. li abdil xadimin ada jaahilan wa hibran fa mat yi la day dañi ci wal bor wal bahru uhudi lahu madihi loxan loxan saddabu wal bor wal bahru uhudi lahu madihi loxan loxan awan an an laxan saddabu hmm. eh, ba yooyu bu mu tàmbalee rek ba ba ba ba ba ak dox ci lu toll nii ay juróom wala juróom benn bayit la la sëñ bi tënk na sëñ bi sàmm ndax ñëpp fara ñëpp ñëw na sëñ bi sàmm na ko ñu bari di mbàkk ñu waaw mu ne ndax man jëw dikk na sëñ bi sàmm boobu gisu ne ndax laaj laaj ñu mel ne ko ah jub man nañ ko gàtt. est-ce que bi ñu ñëwee fekk mu ñax béy ji. daal di nañ ko daal di ko def ci poos. Hmm. bi ñu ñëwee keroog moo moo sañ mosu ko jot jot doo Malick Ndiaye doo jot waaye keroog moom moo doon jot. kon nga xam ne loolu loolu moo doon wax di di di di ko sëñ bi. wallaay. waaw bi mu yegg si sëñ bi sëñ bi daal tàmbali eh, ma jox foo ne woon mu def nii mu ne ko bàyyi ko xamoon naa ci ñu jënd rek waaye waxal mboolem mi ne nañ sant yàlla bu baax. bu mbàkkee mboolem mi ñu ngi sant bu baax. Mm-hmm. lii dama ne kii ñu bind mm-hmm. tey benn àjjana buñ ko maa jaamu dëkk tëkkoon sawara buñ ko mooyee bind àjjana bind sawara biñu bind biñu mm-hmm. par ñaar yi bari di ko lim ba bari lool kooku la wax nañ ko sant ñu ko am mbàkki frais yi day nee ñu kooki xamuñu ko yow lañ xam ñu sant <laughs> bismillah ndax moos daw na fiir waaye tam tam ñu ci fiir gën waaw bu bu bu bu ma weesaloo seen kese googu yéen ma bàyyi leen moom. ndax seen maay seen bàyyi ak seen maam yi fekkoon nañu ko fi te mbir yi ñu ngi kon nga xam ne. loolu moo xam ne boo dimbali ku ne danga soxla. kon sëñ bi ñuy santul yàlla boo ma doon sant. tey ilaha illallah est-ce que <laughs> ilaha illallah macha allah jërëjëf. Euh, baar magal gi nag magal gi moo des. màggal gi waaw ci ci la ñuy bëgg a ñëw nii sax ndax kenn mënut a wax màggal gi rawatina taarix bi te tuddaale woo sëñ Ahmadou Diaw Pakha foofu bañ doon gën a doolee leeral sëñ jaw day yàgg yàlla may na ma bis boo xam ne bis boobu mooy seen bis mooy seen bis mooy seen bis ndax bis boobu mooy bis bi nga xam ne tubaab bi lañ ma hmm. am lu ñu waxoon am lu ma waxoon am lu ñu waxoon am lu ma ñoom la ñu waxoon mënuñ ci tus man na waxoon ma def ko moom sotti colet hmm. saa borom nag daf maa wax ne bis boobu may na ma ci loo xam ne mos ko ku yàlla bind tudd ko may kenn wax na ma ne ba fekk mu jëm ba ma mu jëm déedéem bi hmm. bis bu dee ci déwén si moom fulaal bay yópp loolu may ma am ma gi ma bëgg nag yéen ñi nga xamante ne ci sama mbég muy seen lu ñu laa ci mag ngeen ko jëlee te may lu ma ci bisu laa ko jëlee ngeen sant ma saa yow sax moom sant ji nag mooy tabli ci ganaar ba ci gileem mooy bernde ak jàngal Alxuraan ak jàng xasida ak julli ci Yonent bi ba jant so euh, de sant na ma sant leen ma ko sax moom te te ngeen def ko nag na tabaski na ngeen ko def na tabaski la jëkk a wax na ngeen ko def na ngeen ko def na bisu imaam bisu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam waaye nag euh, moom mooy yéen moo gën ci yéen tabaski yéen moo gën ci yéen tabaski moo tax sëñ ma jaw moom da ko tuuboon tabaski murit murit yëgu noonu waxal naan naan tabaski waat <laughs> waaye moom boo ne tabaski waat mu ne eh, xaayaa tabaski mooy tabaski waat tabaski murit lay wax tabaski murit waaw moo gën ci yéen tabaski loolu laa def loolu ko loolu ko laa def bi nga xamante ne nag moom sëñ bi joxee ñu ndigal loolu daal ko wax na ko ne boo jógee ngeen ci wàllu fan yi wax ko ko nekkoon na ko wax fële yëpp. dañ ko jóg jógee ci sëñ bi dem ci bal sëñ bal Fall yi na ko sëñ bi jaana. nangam nangam nangam ñu ko foofu jaar sëñ bi jaar ba àgg la. sëñ bal na ko tool kan la mu ne ko wax ma ko nag. sëñ bal na ko yaa ma ko waxati mu ne ko waaw man maa ngi wax ci la ko. waaye yow yaa yaa am liggéey wax ko fële yi te man ci fële yi la ko. alhamdulilah. sëñ bal na ko wax na ko. waaw kay gannaaw bi itam. ci ci tubaab gii ci ci ci ci ci ci la ñoom la génnee dem dugg si sëñ Fallu mhm. bàyyi ko ci sëñ Tuba mhm. sëñ Tuba ko wooxaat ko ci magal gi ñu war ko addi Tuba waaye bi mu ko wax mu ngi ko wooxee ak bi mu wàccee benn la mhm. bi sëñ bi wàccee bi ñëw Tuba sëñ sëñ ma jaw waajo bu sas di ñëw ci ñëw ñëw ñëw di ñëw Tuba ñëw ñëw jëm si sëñ Mourou Moussa ñëw sëñ Moussa na ko ma jaw de dama bëgg bi fi sëñ bi ñëw Tuba gii mu yëpp buñ ko fekkee ñu fi daje ba mu set ndax xam naa bis mooy gën bis bi gën sëñ Tuba ci bis bi mu ne ko wax nga dëgg daal ci ànd moom waaw daal sant loolu ci wax ci wax ci wax ga daal ci ànd waaye ba mu ñëwee ba ñibbee ba këram mu ne si man de xam naa ñibbee jëlugu ko dina ndax euh, sëñ Tuubaa day euh, sama sëñ bi leen jigéen la woon loo xam ne fekk jëf ma wut moofu jógi hmm. yàlla de mën na lu ne da jëlee mi ci yëm loolu lay wax waaye xamuñu nag xamuñu nag hmm. kenn xamul jigéen lu kenn xamul tam lu mu doon waaye ni yàlla yàlla mënu fi fi jëlee liñ may soxla seen ji faaw ma def ko. loolu loo def si ñu mën a suuf si jiw at yii waxtu bi waxtaanee dina ko wax dina ko wax waaye kenn xamul nag. kenn xamul nag. bis ñu mën saa wàccee nag. ba am ñeenti ti dañ fa la bàyyi ko fii jëm fekk ko Gossas góor gu ñuy wax Matar Diaw moo ko doon conduire. Matar Diaw xam nga xam ngeen ne da ngeen koy xam nga Matar Diaw moom yaa yaa yaa nekk nekk sëñ bi yàgg ku jàmbal la te xees Moussa Diaw moomee moo wàcc ci oto bi bàyyi sëñ Fallu ci oto bi ñëw sëñ ma Diaw sëñ Fallu daal di bërit ànd ak moom ba ci oto bi hmm. Moussa Diaw bu oto bi mu jox sëñ Fallu ci loxoom ci biir oto bi ci loxoom na ko sëñ Fallu hmm. lenn képp sëñ sëñ Bamba at suñu beer fii sëñ Fallu na ko lu mu mu ne bis sëñ Bamba bii hmm. bisam bii bis boo ko wootee Touba murid yëpp fekkal Touba defa na ko yow Touba ngay sëñ Bamba at fi mu ne ko naa ko def bal bay loo ñoom moo ci am fa ñetti est-ce que. ba mu demee rek la wàcc moom. ma man li ma fa def jeex na. fekk ci at ma ci ma ko weesoo daa bay tool bu wutit récolté ko euh, wut euh, ëccaloo ko ay mag. ñu def ko ay poq ñu def ko ci saw. man at la war a tolloog loolu noonu. quarante cinq quarante six. Hmm. quarante six. quarante quarante six. quarante six la tool bay tool tool boobu. waaye kan cinq loolu sëñ Moussa ñëw sëñ Moussa loolu sëñ sëñ Fallou ñëw mu wax ay weer la ñetti weer la ci teg dem. est-ce que 47 sëñ Fallou woo ko def. sëñ Moussa bay ko. boobaag léegi nag euh, màggal gi. njaboot gi taxawaayu njaboot gi ci màggal gi. booba di moo moo na nga ko na nga ko defee moom rek ndax moom. waaw loolu noonu mooy bu boo ko suñu waxee ndoyi loolee. la mhm. bàyyi woon tabaski moom. su su su màggal gi mhm. day woote ku ko yaakaar rek lu am mu mu rey ba mu ay ay sotti ay ay ay ba mu xaaj di sotti xaalis di ko jaxase xaalis bi ñu jox nit ñi. muy wax ne léegi teel bi fekk ñu ma bi sëñ Bamba bi ku waay waay yóot boo ko jot. def na ko fukki at ak juróom-ñeent yoo xam ne ñu ngi koy ko magal nii ñu koy magal sax loolu foog magal kër. yàlla dogalee ñuy dem a dem ba sëñ Fallou andi woote ko itam te yàlla it loo joxoon sëñ Fallou moom moo moo laaj ba nu ñëw mu teglu ci yoon woo xay bi moom mooy yoon nekk fi ndax euh, dañoo màggal ci quarante-neuf mu ne sëñ Moustapha ñi ñi ñi sëñ Bar Jaw bàyyi ku ci gën di bëre sëñ Moustapha di xool ba siin ma na ko ceerlu mu mu ne ceerlu kaay ma ñëw mu ne ma mu jàpp sama rob bi ne ma na nga gàmm si dama la soxla ca gàmm googee mm-hmm. ma ma ñëw ànd ak ndaw mm-hmm. ndaw di wax sëñ Jaw bi na ko Jaw mi ne sëñ Jaw sëñ bi waxoon ne suñ fa lu waxoon mu ne na na na gàmmu mi moom ñu suñ ma suñ ma jaay ba mu ne sëñ bi Thierno Diaw mu ne anamu sëñ bi ne anamu mhm. maa ngi kaay mu nuyu mu naa leen man jaay boole boole ko ndax mu yóbbu ca baara bu sëñ baara ngi dëkk ci penku jubaa ji penku penku jubaa ji penku màkk jubaa ji la ñu xool dëkk mhm. yóbbu ko ca baara la wax waxul suñ baara waxul dafa yóbbu ko ca baara ne ko Thierno Diaw mooy doon sëñ Mat Diaw maa ko maa ko woo dama ko soxla nar def moom moom woo mhm. alaj baara it maa nga fekk mu toogam boo di wungul màkk ñu ngi la mag ndax mille cent cinquante la euh, maa ngi maa ngi fekk toog fekk bu ñu xam mu ne Mor Touré demal defaral euh, gan yi ko njëkk soxna Anta Ñang ba Anta Ñang nag soxnaam moom daa dafa dafa béy ko ñu defar yëpp boobee ma dem ci am naa fa am juróomi fan waaw ba ma xam nga juróomi fan ba ko ba juróom-ñeent fekk takkusaan la ndaw ñëw waaye juróomi fan yëpp fa bu ne bu añ yi ñëw woo si ma bàyyi fa sëñ bi bu dee jotee muy boobu mooy relation moom bu ndékki jotee noonu waaye su ma defee mu ne ma dellu dellu toog rek ma dellu toog ba mu juróomi fan ci juróomi fan nag ci takkusaan la ndaw ah, ma ne maa ngi ñëw wuyu sëñ bi bi mu ñëwee maa ngi fekk ci kanam oto bi moom oto ma ci gannaaw ma fekk ci sëñ son busu ak suñ mbay sall ñetteel at mu ma lay sëñ ci Aliou cinquante bi ñëwee morali woo bokk ni bokk ñu wax Cheikh Guèye. Cheikh Guèye Cheikh Ibrahima Guèye mi doon doon doon waa Guèye mooy bàyyam. moo doon moo doon tëgg. Cheikh Guèye mu ñëw mu ne ko Thierno Diame yi doon sëñ Madi Ba yóbbu ko sa néeg mu daal sa néeg. ba mu néeg néeg ñëw na ko lool. ma ma daal néegam moom it am na fi lu mel ni la am. mu daal mbañ daal daal si ak daal di ji fa moom it am naa ko ñeenti fan juróom juróomi fan. waaye sëñ bi bokk ba taxaw. ba ko juróomeel nag ci guddi timis laa jub daal dem ca buntu buntu kër ga toog fa yor sama kurus jafe lool. <laughs> ndax tekkee ñàkk gi xam dara la ci ci ci gàmmu rek. wallaay foofee la ma Cheikh ji fekk. Mhm. a ah, jërëjëf ah jërëjëf maa ngi ñëw fekk mu ñëw fekk sëñ bi mu ci képp keppaaru bu xamee. Mhm. mu ma mën doom ji foofu foofu foofu la juddoo ci nii boobee. ci at ci at yi ca ñaari la ci sa gannaaw. Mhm. ndax nii boobu waa ndox ñoo ko ñoo ko eh, gi nag ñu sa kaar ko bi bak nii boobee ñu dugal ci soxla mooy nañ sëñ Mourou Mamour. merci moom mooy góor gi te keppaar ci ngoo ci wàllu ngoon grâce mu jiwaan mu jëm sama ko ci am jiwaan ñu laal laal kenn mu ñëw toog. Hmm. Euh, nuyu ma daal ab toog ab diir. ba ba soog mu wékk ko ci ci ci ci joo ci yoon bi daal daal ma jox jox sëñ Paxa daal ma jox ko loxo mu daal jox ko téye na ma da ngaa bëgg a toog fi maanaam da ngaa bëgg a dem dalu sa kër bàyyam loo bëgg ma ne ko loo wax rek la bëgg. est-ce que. loolu loolu foofu la ma dikkile eh, moom eh, bu ñu yàkkati woon naa bu ñëwee moo dem lool waaye nag eh, li mu ko waxee daal foofu la ma dikkile ma ne ko man de loo loo wax rek la wax. Hmm. mu nga xam nga lu ma la doyee ma ne ko ah di xëy na ko de mu ne loolee sëñ Tuubaa joxoon suñu ma jaww mi ngi sama loxo bii yow mii daa bëgg nga laaj ko ñu jox la ma ne ko man loolu laa soxla. mun nga xam xam nga loo koy joxee bu ma mayee mu ne kañ ña keroog mu ne kañ ña. kañ ña waaw ma ma ma ma ne ko ne tey day tey day tey ma xam nga kañ ña mu ne ko déedéet mu ne ma nii rek. ñaq ma ne ko la wax mu ne ma ca daara ja laa wax mu ne nay wax di ma ne ko nay mu si mu ne yi dooloo si ñu woo muur si muur si boobu mooy jëriñ mag ji. ñu woo mu ne ko moor daa bëgg Thierno Diaw mi ngi gisal ma ko Fallou Cissé xool si yéen a ndey mag dañuy laaj bari ñu mbokk léegi bay. soo fa fa xëy sal la ak soo fa sal. soo fa fa sal mooy dem soo fa sal mooy day sal mhm. mu mu jëriñ mu jëriñ foofee. mu yëngu lu ma xool si boo leen nekkoon kooku yi ceeb bu jaww moom loolu suñu doon na ko tax ceeb rek. ma daal di bërëb daal di fuddit sama xaftaan mu solo na ko xëpp daal di wax wax mu tàng yooyu ki mu yóbbu mu ngi toog dem naa lu toll dem dafay toll na ne ceerno ceerno moom mooy mu kaay ma dellu si yow toog bi ceex gi mu taral ma loola ci toog toog toog loola ci kaw toog ba yit ma ko ci biir néeg bi ceex gi andi ko muy mbalaan moo xam ne mbalaan rabal moo xam ne mu rëy lool weex tal mënu ko xëpp léegi sango sedd dame est-ce que est-ce que macha allah fa tabarakallah loolu laal foofu laal la jaar ak moom alhamdulilah fukki at ak juróom-ñett waaye ba daan daan daan àgg na soixante trois nag laa ko fekk nji ni gii guddi fekk sëñ Moussa si di jàng Mm-hmm. maa ngi kilifa yu bëri ngi toog mu ne kenn kenn ba ñëw joxe loxo rek dinañ jëm nale waaw si Moussa waaye ñoppee ma ak wakkaanaa xam noonu jàng ñëw ba ba joxal ba jàppanteeg sëñ ba teg ne loxo mm-hmm. sëñ bi daal ma ñëw mu ne mu ne sëñ Moussa damaa bëgg wax ceerno bi fi ma dama defanteeg moom bii dama dama dama ko wóol ba mu ne ko sëñ mën jaw de la ko sëñ tuwaa joxal bii sama mm-hmm. ko ñu jox la ko mu ne man ci daal mu ne caw ci mu ba tey jii. ko mhm. wax lépp def na ko may dama ko wax def na ko ñax na alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. allah xam naa ne mbokk yi ñu ngi sax wax waxtu wi xam naa ne mi ngi bëgg a mat waaye. kaddu gi nga xamante ni moom ngay tàggatoo ak euh, suñu bokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp mm. euh, ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal saw fan bu baax a baax taas ñu ci barkeb mag ñi nga xamante ni ñoom nga doon ñoom nga fi tudd rawatina sëñ Mour Jaw Paxa mi nga xamante ni tey jii moo waral jotaay bi wax dëgg yàlla dooleekuwaat nañ bu baax a baax te am nañu yaakaar ci ne ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci site internet bi di Rafah TV gënante nañu am ak cofeel ci sëñ Mour Paxa waaye nag ci yow ak sa pas-pas bi nga xamante ni am nga ko loolu itam ndax dëgg yàlla daf ñuy gën a dolliwaat bu baax a baax gën ñoo ñaaxaat bu baax a baax ndax ku xool fii nga jaar ak Cheikh Abdoul Fadal wax dëgg yàlla day wane ne euh, daanaka li wolof def naan doom ja bàyyi ja yàlla pas-pas boobu moom nga am euh, ñaan suñu borom. booy macha allah yooyu yëpp ci allah macha allah xam naa ne waxtu yi moo xaw a waaye ku mel ni Sëñ Abdou euh, am ngeen relation moom itam. loolu <laughs> ñaar tuuti rek tuuti rek su defee ñu ñu ñu kii ndax mënut a ñàkk nag. waaw moom dañ ko kii wax ndax ndax maa laaj sëñ Modou moo ko jox ndax da daa daa sëñ Modou ku liggéey ku sëñ Fallou yar mhm. ndax mu jàppale woon ndax dëkk bi ku ma ko jox rek doo mën a dem loo ati balaa sax ba dëgg maa ci maa ci ànd dama doo mën loolu mhm. sëñ Modou itam loolu jaaxal ko lool sëñ Modou woolu ku ñu xam ne mat euh, Babacar Mbaye mhm. moom sëñ Ibrahima Mbaye ca ca ca ca ca ca dëkk ba ca Louga Ababacar Mbaye nag moom tamit Sëñ Fallu woon ndax moom la fi Sëñ Fallu la fi tubaab yi ko donc mhm. waroon na ko man kat sëñ Abdoulaye yow yi mu ñëw daal di si man loolu ndax damay damay seetloo damay laaj ku sëñ Fallu yar mhm. ndax mu jëm jàppale ko ci dëkk bi mhm. euh, ma ma xam ne yow am naa ne yàgg fi te xam naa ne ñi àndoon Sëñ Fallu yëpp xam nga leen waaw xam naa ci ñu bari waaye man de bu fekkee sama xel doyoon na man de kenn dong ma ci doy Thierno Diop moom mooy mooy Thierno Diop. te li tax nag moo te dooy mag la. te du du ragal. te am na fu ko jaarale. kenn koo ko jox pour mu mënoo da nga jàpp loolu xëy. dañ mun na ko may di moom laa xalaatoon sax jaxasoo wuñu de waaye moom laa xalaatoon. ndax maa maa ko doon xool. sama xel moom la jàppoon de. ni ko bu fekkee yow kon loolu ah bu ji nag ba xëy loolu bu ko wax. soo ko waxee dana waxit doo ko mën a dara hmm. day bañ ba tëdd ci laaj bi doo ko mën a dara donc loolu yi daa def rek loolu ñu la gëfee ab ab siit nanga ko nanga koy def jektal bi bi soñu la rek nga mu ñëw ko yox yow it ko da ko ci yàlla waaw noonu la ko def <laughs> est-ce que <laughs> macha allah barakallah jërëjëf wax ñëpp daal moom ànd àndoon diir moom nag hmm. doy waar la da daa wax ne hmm. man ne ceerno du tax jiwóojow nit ñi mooy suñu fa dox suñ mënu saa dañoo jël man damaa jëkk ñett yi bëgg a suba agsi est-ce que. su ma fi jiwloo kenn ba mu xool fi kenn du ma fi def dara. wallaahi sama baay ba mu ñëwee ndax dafa ne sama gan googu am na ci moom yaakaar. wallaahi kii bëgg a fi def dara te bu ma tax yaakaar rek. alhamdulilah loolu tax du daal la mas maa wooyit na ma. sëñ bu xëy dañ ko defal jàkka. yoo xam ne ji Mor Ndiaye Pa Pakul Ambaay moo ko defal. te bu xëy woolu moon na wala waa boog mu gis mooy ay laatu ñoo ñoo ñu ci def. wala ñu ci ñu dañu la dañu dañu lal ba mu xaaj sax di ma dem ba toog ba bëgg nag toog bëgg fekk ko. di ko nettali. man man sax maa ngi jëmoon nii ci kër tiir yi ndax dama ko dama ko dama ko formation la ma bëggoon seeti ko. naan dem foofu wala ay tonto. boo boo boo boo kër tiir yi. ñu bu ñu teg boo boo ay ay ay ay kam ay ñu ñu jox si ay photo waaw nga xëy dara amuñu dara. ci ci ci biir ci ci ci benn benn poteau la toog mu toog ñun ñaar ñu nar. Hmm. mu ma nettalaat ma nag ma waxoon ma nettali ko mu ne ma. Hmm. damaa bëgg ñu euh, waxtaan ndax yéen ko tax a jënd ñu diisoo. mën nañu jóg loolu la war wax. Hmm. waaw mën ngaa ñàkk am nañ Tuubaa mu ne ko ah man boo ñàkk nañ Tuubaa du am dara. <laughs> wallaahi mu ne ko Abdoulaye bi mënut a ñàkk sëñ Tuubaa. man ko ah man damaa nekk yaay sëñ Tuubaa mu ne waaye nit maa maa ko fi ne la. waaye man dama la bëgg wax ne sëñ Abdou Khadim moom it maa bëgg a wax wala bëgg wax rek mu ne bu sëñ Sam Sam sëñ Tuuba lépp lu ma sant si maa leen digal ni ñu ko defee rek na nga ko na nga ko defee bu ma ko am ko tuddee ni ko defee rek mm. noonu noonu la ko noonu la ko digal bu la ne woon ci ma ci ci ci ci ci jumaa ji dawal dawal ma fa bitik dawal alhamdulilah ndax yàlla <laughs> jërëjëf macha allah baarakallah jërëjëf Serigne Thierno eh, Diaw xalifa Serigne Modou Diaw Paxa koy sant bu baax a baax dëgg yàlla am na nañu mbégte xol yëpp tooy na ndax waxtaan wi eh, tegugum tegul am nañ juróom-ñaari at Sèye Blac. lu gi loolu Sèye Blac juróom-ñaari yoo yor naa ko juróom ñaar est-ce que yàlla. ba ba ba ngi woon. macha allah tabarkallah. waaw jërëjëf jërëjëf xam naa ne waxtu yi moom moo gàtt lool waaye waroon nañ cee gën a sax xóotaat bu baax a baax waaye di sant.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 ربك بمجنون résidence Lat Dior si 32 villas ak 64 appartements mooy standing gaaw leen gaaw mbokk yi ak si def seen formalité mën a am dëkk dëkkuwaay bi ngeen doon rêvé ñu foofu di Proxime Ville indil leen résidence Belel City Diamniadio fii tamit mbokk mi mani la am na ay immeubles jumelés appartement standing avec sous-sol parking salle polyvalente supérette restaurant salle de gym espace vert syndic ak it sécurité bu doy cadre de vi ba nga yàgg di rêvé moom am fii ci résidence Belel City Diamniadio contacté ñu suñu numéro yi di 77 645 59 31 wala 77 804 74 27 33 823 83 suñu email mooy abdlo arobase proximeville point com suñu site web di www.proximeville point com résidence Pelel la Diamniadio résidence Lat si Bambilor lii daal moom la leen Proximeville yembal ba tax mu andil leen ay sachet yu benn kilo muy un kilogramme mbaa libar muy cinq cent ak ay sachet yu genn wàll liibar muy deux cent cinquante ngeen mën ko am fépp ci Sénégal yow mi yittewoo kafe Touba bu waxul dara wooteel ci numéro yii 77 227 47 78 wala 76 286 87 86 café Matlabul Afia taxaw temm ci jox leen cafka café bi ngeen taamu ba tey mbokk yi dañuy yëngu si wàllu visa Dubaï saa su ngeen ko itteewoo Ocas Touba Cargo Service Dubaï mi ngi nii gaaw leen gaaw sunu màkkaan si Dakar moo ngi si bopp jàkkaarloog hôpital ba suwetu grande mosquée Massalikul Jinaan wooteel gaaw si 77 940 66 66 wala 77 204 32 95 78 276 15.

34 suñu représentant ca Dubaay mooy Serigne Abdou Khadr Bousso suñu adresse di Ayal Nazer Street si wetu bori masjid ca immeuble boobu di Al Zarwani suñu email di toubaocas arobase hotmail point com mbokk yi xanaa kon jaaxle jeex na di ngeen ci ànd ak personnel bu xam wall wi doon ay professionnel ak Ocas Touba Cargo Service Dubaay ñooy dalal seen xel saa su nekk si wàll wi. إلى الذي استان بي تقوى بتام